Sunugal 24 point net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net alors ñoo ngi ak Ndiaye Ndiaye Sunugal 24 ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay bu baax waa Sénégal 24. alors euh, Ndiaye nga nekk artiste comédien ñu xamee ci télé bi ak euh, rajo yi euh, nga nekk groupe Futur Média alors ngeen nekk ci benn émission bu ñuy wax allo présidence muy am RFM. nga nekk ci di ci def lu rafet naka nga intégré équipe boobu nga xam ne si moom mooy allo présidence. waaw allo présidence man bi ma koy def booba maag DJ Boubsou ñoo ko ñoo ko njëkkoon doon def. noonu après ñoom euh, bi ñu demee ñu continuer di ko def fii ci RFM man ak euh, El Hadj Abo Bilal ak Père Boukhar ak doyen waaw. alors euh, ñu li ma ko waxee léegi yaa ngi groupe Futur Média mais seetu bi rek la ñuy gis Ndiaye ndax Ndiaye foofu rek lay yëpp wala dafa nekk ci leneen. non non xam nga fi TFM dafa nekkoon goo xamante ni daanaka booy seet lépp loo xamante ni rek mooy sa cër tôt ou tard dina ñëw ñoom noonu la ñuy doxee dañuy gis benn affaire gis na ah fii kat Ndiaye moo fi jekk. nañ woo ñaay mu def ko. mais du question doya dal ñu du question tuutal ñu ndax it euh, seetu bi tamit émission la bu am solo boo xamante ne ñëpp dañ ko bëgg ku Youssou du ko bëgg Bouba du ko bëgg même la famille ñam ñëpp ñoo ko ñëpp ko bëgg waaw. Ah, ah, ah, ni ma ko waxee léegi yaa ngi groupe Futur Média di fa def liggéey bu rafet mais ak talent bi nga am talon bi ñëpp kenn weranteetu ko euh, njaay boo ko waxee rek xel yëpp dañuy dem ne kii euh, am na talent mais duñ la gis ngay génn di def comme ay série wala ngay def ay sketch yoo xam ne si ni dafay reetaanlu pourtant. pourtant lu tax loolu yow duggloo ci affaire bu mel noonu. si si pourtant bëgg nañ ci dugg à cent pour cent mais xam nga boo nekkee euh, ci kër goo xam ne da am kilifa danga naan tekk rek di déglu kilifa yi. ndax it euh, dina jot ñu am suñu série yoo xamante ni ñoo koy moomal suñu bopp te xam naa ne bu baax ñoom ñu ngi ciy ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax a baax ci loolu incha allah. Euh, ñu ñëw ci euh, benn tolof tolof bu amoon jamono jële passé ba nga xawoon ci nekk dugg foofu noonu yaa ñaanatul ko yàlla loolu lan la def ci yow ak bi nga jugee foofu noonu lan nga lan nga xam ne si ni yokk na ko ci si ci yow ci sa personnalité. waaw loolu dafa ne loo xam ne c'est inoubliable kenn mënu koo fàtte ci àdduna mooy dogal ndax koo xamante ne nii du xeex sax waxatuma la bay xuloo waxatuma la ak moom kenn ku ne xam ne accident day am ci ci ci ci àdduna kon nag euh, damay jàpp ni rek yàlla moo ma ko teg moom ma tegoon natt boobu te it euh, wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne ñoo ma gën a métti le fuuf te bis bu leen ko war a teggil da koy teggi ma di ko sant yàlla bu baax a baax di gërëmal ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy famille xale bi ndax tey lañ gën a jàppante wax dëgg yàlla tey lañ gën a nekk benn. jaar lan la def ci yow. waaw waaw def na ci man ak moytu def na ci man ak gën a teey def na ci man ak gën a xoolaat fi may teg sama tànk def na ci man it gën a bëgg xale. ndax wax dëgg yàlla day doon image yoo xamante ni saa su ne day dellu ci sa kanam da dawal sax mu mel ni image bi day ñëw ñii ci sa kanam waaye nag ñu koy sant yàlla rek te xam ne yàlla moom noppi na démb tey soog a ñëw. Euh, ce duo ak euh, ki nga xamante ni moom mooy doyen nekk euh, un duo de choc kenn weranteetu ko ngeen nekk seetu bi di def foofu liggéey bu am solo mais man loolu daf ma jaaxal complicité bi ngeen am xam nga entente bi ngeen am loolu lu ngeen liggéey la wala da ngeen di ñëw nii rek ngeen door mu jàll mu naaj. doyen lañ seq ci biti sax moo ëpp lañ seq ci biir maa ngi moom famille lañu man moom père bu xar El Hadj ñun ñëpp famille lañu li ñu ëpp li ñuy seq ci biir. kon doyen sama déggoo ak moom yàlla moo ko def ndax it wax dëgg yàlla la ñuy waxtaan ci biti mooy indi déggoo bi nga xamante ni dañuy dañuy def émission sans sans bàyyi xel sax day mel ni comme maa ñu ngi toog di waxtaan journée bi xanaa dina ma ci woo cinquante mille fois dama naan ko doyen yow bu ma wooti waay <laughs> man wala yenn saa yi mu ne ma yow tamit waaye bu ma wooti waay mais xam nga yooyu entente la boo xamante ni yàlla moo koy def tey wax dëgg yàlla adduna euh, lu ñu naan nit ki ah, wax dëgg yàlla diw li mu nekkee dañ ko cee bàyyi soo ko ci bàyyee rek ngeen mën a nekk. c'est li ma la wax diw li mu nekkee ko ci bàyyi boo ko ci bàyyi ngeen mën a nekk xoolul sama jikko xooluma jikkoom xoolul sama jikko ju ñaaw xooluma jikko jikkoom ju ñaaw xool jikko yu rafet la ñuy xoolante ñëw ànd boole ko te ñun ñëpp wax dëgg yàlla noonu lañu koy doxee ñun ñëpp moo tax lépp lu ñu song rek dañuy yono ba ca kaw dóor ci suuf. d'accord nga nekkoon euh, équipe Kouthia Show euh, léegi jugee nga foofu mais ba léegi yéen a ngi ci euh, même groupe bi yow ak Kouthia léegi ban relation ngeen am après Kouthia Show. waaw relation bi dafa gën a dëgër ndax it comme ni ma ko jàppee démb ak barki démb rek yow bu la sa mag doon saaga da ngay fayu bu la sa mag dee da ngay fayu kon sama mag la damaa def ni ñoo ko ndey ak bàyyi rek lépp lu mu wax dama ciy béggee rek jàll te tey li ñu gën a def nii ndax tey li ñuy gën a déggante di waxtaan lu ma xalaat woo ko lu mu xalaat woo ma wax dëgg yàlla tey ji la gën a neex nag dëgg dëgg tey la gën a neex nag. <laughs> alors euh, kontaan nañ trop euh, ci dalal bi ñu la dalal ñu bàyyi la nga def sa kàddu bu mujj ñu daal di yëkkati jotaay bi. waaw sama kàddu bu mujj mooy di ñaanal Sénégal 24 mu gën a dem ca kaw dem ndax it wax dëgg yàlla xam nga ndaw bu amee idéem naam amoo sax fond ba waaye ngay dajale ba am matériel bi nga bëgg daat na lii laa bëgg ibbi luy jariñ askan wi ndax information dafa ne loo xamante ne àdduna ñëpp a ko war a soxla ndax it di dina tax nga gën a yeewu gën a xam fi ngay teg seen tànk kon Sénégal 24 yàlla na gën dem ca kanam ba àdduna bi ñëpp xam ko di ñaanu Sénégal ñaan na fi yàlla def jàmm allo présidence bi nag moom wax dëgg yàlla xam naa ne laajoo ma ci waaye naa ci ñam tuuti xam li ma ci ñam mooy que icône bu mel ni Kouthia ñun ñëpp ñu dajaloo nga jël jiital ko ci loolu wax dëgg yàlla loolu duñ sax xalaat dañuy ñëw rek dóor mu daanu <laughs> waaw waaw. alors euh, Ndiaye la ñu àndaloon euh, Sunugal 24 euh, mi ngi lay jaajëfal bu baax ci dalal bi nga ko dalal. jërëjëf jërëjëf yal na yàlla def jàmm suñu réew mi yëpp na yàlla am jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ bu baax a baax jërëjëf. Sunugal 24 point sport société actualité politique culturelle ngeen jot l'information à sa juste valeur si si même sunugal 24